wa iran lakum assalamu aleykum wa rahmatullah fa antum axookum muhammad drame nuxayikum wa naqul bismillahi rahmani ñu ngi neexoon ci buntab juuma jàngale xoon nañ yi nga xam ne dafay dagan ci doom aadama bi mu ñàkka dem juuma waa jàngale ni itam teggin yi tey ñuy jàngale ngànt yi yi nga xam ne bu dalee ci nit ki kooku am na ngànt dem juuma te bu demut tam kenn du ko bindal bàkkaar wa amaal axsaaru daal ngànti juuma al mubihatu yara aja daganal li taxallufi ci wuuti xanaa si juuma nga xam ne su la gaaree am nga ngàntal dem juumaa te kenn du la bindal bàkkaar min bokk na ci loolu almataru taw ashadidu bu tar taw amoo fenn foo jaar pour dem juumaa kon su baa kër ndax ngànt ñëw na moo tax bokk na ci loolu almataru taw ashadid bu tar wal waxlu ak ban alkasir bu bari taw na sax ba arrêté waa suuf si boo fi jaaree boo sàgg ne mën ngaa duute dañuy wax duute mën koy def euh, su boobaa na nga toog bul dem wal mu jësam ak ku yore feebar bu xonq bi bu njëkk rek bañ koy wax ñu naan feebaru ngaara la feebar la boo xam ci gàttal dafay lor mbooloo ma bu jamono bi ñu firee ko corona ku yore corona mën ngaa ñàkk a dem juuma ma wol di wol mujj sam ak feebaru mujj sam ak lësi ba nga xam ne tadru dafay lor raixatuwa xet ga bil jamaati ci mbooloo ma am na feer bi daal am na benn xet fosoo xet goo xam boo demee da lor nit ñi toogal yow am nga ngànt wal marat ak feebar ak feebar bu nu mënta demee moo xam biir bu koy métti la moo xam bañ bu koy métti moo xam dafa siburu moo xam loxo bu ko metti waxalaa kuli xaal am na méttit bu jégg dayoo wala méttit am na ko na toog am na ngànt dem juumaa ndax addiina yusrun dina kat dina jàppandal la wa tamridu wala feebarle yow yow sa bopp feebaroo waaye da am ko feebar bi an yëkkoona ba nekk xëy na moom ahadun kenn min ahalihi su ñu maridan mu di aji feebar kenn ci sa ñooñ moo feebar benn muy njabootam doomam benn muy soxnaam benn muy frèram imam mu nekk petit frère wala grand grand frèram wala mu nekk sax sa collègue boo xam ne yéen bokk ci liggéey mu feebar te amul kenn ku la fa wuutu su boobaa am nga ngànti dem jumaa min ahlihi maridan ka zawjati mu ngi nii nit ki soxnaa moo feebar na nga toog dégg nga da toppatoo soxna si hmm. wala wala doomam doomam moo feebar amul kenn ko ku fa xaar am na nganti dem jumaa wa ahadi abawayni ak kenn ci sa ñaari waajur dafa am ku ci feebar moo xam papa jala am nga ngàntal dem jumaa moo xam yaay ji am nga ngàntal dem jumaa bi ñoom ñaar na rawatina ko ba tey am nga ngantal dem jumaa ba tam rew ahadil abu way ni sa xenduhu te nekkul fa moom mm, dégg nga man yoxon luhu ku koy xuutu amul kenn ku lay xuutu ci ñooñu su boobaa yow fa yaxtaaju dafa xaaju moom waa jooju ila taxallufi jëm ci xuutee ci juumaa ja su boobaa yow bu fekkee feebar la yow mën nga ñàkka dem juumaa su fekkee danga feebarle muy sa doom wala muy sa soxna wala kenn sa wajur wala nekku ci ci kenn waaye sa kolet la su boobaa am nga ngàntal dem juuma aha li tamridihi ngir ak feebarleem wa min saalika bokk na ci ngànt yi isax tuddira bu fekkee dafa toll ci sukuraat mooy sapp dee ahadun kenn min aqaaribihi si jege ñaaleem aw ixwaanihi wala kenn ci bokkam yi dafa am koo xam ne mu ngi toll ci wàllu sukkuraat na nga fa toog pour waajal ko waajal ko toog ci peggam di tudd baatu laa ilaha illallah baati sedd yi na koy wax te bu ko wax mukk nag wax ko wax ko moom boo ko waxee mën naa fekk boo mu ngi xeex ak seytaane bu la waxee déret nga jaaxle kon yow del tudd baatu laa ilaha rek saa soo déggee mu wax ko rek noppil léegi euh, kooku it dafa am ngàntal dem juumaa xaala wax na malikun imaamu malik radiallahu li ñu nekk wax na fi rajuli ci waajoo xam ne yëxaliku dafa nama alaku yowmal jumaat ci bisu àjjuma waa joo xam ne dafay àll dafa nam ak génn jamono ci bisu àjjuma faye taxalafu dana xuute dana xuutu xendoo fu moom rajulun waaye min ixwaanihi ci mbokkam ay mbokkam ci ay mbokkam yi dana am kenn ci ñoom koo xam ne dafay dem xuutu ko waaw ñàkka dem jumaa da toppatoo ay mbiram da tudd baatu yàlla fexe fu moo tëdd mu set na laab bu ko dara taq yanturu dana xool fi chani si mbir waa ji laa baasa aayut fi saale ko ci loolu kuy watol ci wàllu sukkaraan nga ñàkk a dem jumaa du toppatoo ay mbiram da ko xool loolu ngant la su boobaa mën ngaa ñàkk dem jumaa wa min ha bokk na ci ngànt yi yi nga xam ne bu gaaree nit ki am na droit dem jumaa law xaafu bu ragalee ala nafsihi ci boppam dégg nga min darbi saalimin ci dóoruk aji tooñ aw xabsi wala ak tëjëm si axsi maalihi wala jàpp alalam danga nga ragal boo demee si jumaa ji da nga fa dajee benn waay boo xam ne ab saaxu saaxu la wala ab cisi cisi daan la tooñ dóor la su boobaa toogal doomu aadama dafa am dignité bëggul kenn ku ko toroxal kont boobaa léegi nanga toog ñàkk dem jumaa wala aw xabsi yi wala tëj da nga dem waa ji mën a laa fayee ku bot te amul amuloo ko fayee wala sax mu tàppaas la yóbbu la ci yoon moo la ëpp doole boo demee ñu tëj la ndax gaa ñi laa xut te yow wóor na la laa xut dañ laa ëpp doole kese ndax réew moo xam ne dëgg doxute la su boobaa am nga duraa ñàkkaa dem juumaa waaye bu fa nekk da war nag man damaa gëm yàlla damay dem kenn du ma dem juumaa beneen leen na këlëb dégg nga maam jàpp la yóbbu la prison nga sonn sonn sa waa kër wa axsi maalihi wala jël alalam wala dangaa yor gan goo xam ne moom sa xel dalul ci moom <clears throat> Euh, sa xaddalu ci moom boo demee julli jumaa man la sàccal benn mu sàcc sa oto wala mu sàcc say gàtt wala mu jël say xaalis en tout cas daal xóoluxoo ko su boobaa am nga droit ñàkk dem jumaa wa kasaalika na ko noonu si ñàkk dem jumaa almuxsiru aji aji aji ñàkk mooy ko nekk ci jafe-jafe yaqaafu mbir moom dana ragal an yaxbisuhu ba tëjat ko xarimu aji fayakum alal asahi ci wax ja gën a wér danga yore nit ki bot nekk ci ay jafe-jafe yu métti te ragal nga ne boo demee jumaa mën nga faa dajeek waaj ji waa ji la doo am mu daal di tëj kon ñu ne toogal xalal asax yi nag ci wax ja gën a wér waaye nag xayru sax yi xayru asax moom daf naa na nga dem rek bi laa tëjee nanga dem boobu na wax la boo xam ne dafa nekk lu daxeef amu euh, amu doole wa min taalika bokk na si nganti jumaa yi al gumba koo xam ne gisul àll si koo xam ne laa qaida jeet jenn orienté loxoo ñeel ko amul kenn ku koy orienté ku koy omot yóbbu ko si jumaa ja te moom it mënta yow boppam si jumaa ja kon su boobaa am na ngànt dem jumaa ndax moo mënta yóbbu boppam amul ku ko yóbbu su boobaa na toog amma law kaana bu nekkee loxo ñëxal waaje xaidun ku ko yóbbu mooy aju xamat xam na ko ko yóbbu aw kaana wala mu nekk moom waa ji nga xam ne gisut mi man bokk ci gaa yi nga xam ne yëxta di mën nañu gindeeku ba dem dégg nga lil jaami'a ci jumaa ja bilaa qaidin ci kenn koy xomat kontu bàyyi léegi fa laay jow su daganatu loo ñeel waaja attaxaluf wuute xan xaa su jumaa ja bu fekkee moom am na ku ko xomat yóbbu ko si jumaa ja na dem ba mu ne gisuma ma dem déedéet na dem wala amul ko waa ma mën naa def ay pexe ba dem si jumaa ja na dem ndax gis ne ne yeneen yeneen waxtu yi dégg nga maam dafaa dem si jumaa ja kon kay rawatina na wax dëgg yàlla aju a dem moo tax mu ne fa laay jot danga na lu ñaar waa jo nga xam ne gisut a taxalufu ak wuute xanaa su jumaa mu dem ci yi nga xam ne dafa xaraam ci jullit bi ci ki jullit bi nga xam ne jumaa daf ko jàpp wa yaxramu wa yaxrumu dana xaraam asafaru tukki xanda zawal fa jengu jant ba min yow mi jumaati si bisu ajjuma walla man ci képp koo xam ne te ba war na juma tëj ba war na xale ci juma képp koo xam ne juma daf la war xaraam na ci yow ngay tukki gannaaw boo xam ne bi di passé na jëm eneer ndax léegi julli juhoo juma mën nga xam ba julli juma kay soog dem waaye toog ba eneer nangam ba nit ñaa nga waaj pour dem jumaa nga nga soog faa gàddo soxna maa ngay tukki loolu dafay araam da nga defee da am bakkaar waaw mi man ci képp koo xamante ji bu war na xale sama aljumaatu mu tukki ci ki nga xam ne jumaa daf koo war alkalaamu wax wan naafilatu ak naafile wal imaamu te mbir fekk imaam yaxtubu mu ngay xutba fa imaam du xutba dafay aram yow nga fay jog naafale walla ngay wax soo waxee foqal la xawta dangaa neenal sa jumaa ji tiyaaba ji boo doon nekk junni manqué nga manqué nga ci lu bari ci wax ju nga wax kon lu gër moo jàpp sa njàmbur moo tax dafa xaraam nga wax wala ngay naafale wala imaam fekk imaam yaxtub mu ngay xutba kon su fekkee imaam dafa ñëw noddkat yi da noddu yaa ngay wax kii ñëwel fii yooyu kon ba léegi loolu du bàkkaar ndax imaam commencé gul sawaa un moo xam ne kaana nekk na waaw moom imaam ba fil xutbati ci xutba al uulaa bu njëkk ba aw fi saaniyati wala ci xutbaa ñaareel moo xam ci xutba gu njëkk nga ci la nekk boo waxee dafa xaraam boo fa naafale dafa xaraam moo xam ci xutba ñaareel la soo fa waxee dafa xaraam soo fa naafale dafa xaraam ndax naafale mooy lu bokkut ak farat am na ñoo xam ñu ngi ko jéem a layal naan tahitu masjid tahitu masjid naafale la ba tey ndax du forat kon su imam xasee ba ñëw du xutba daal boo ñëwee la toogal loolu daal moo lu gën a ci ngir Malik ñu ne yonente bi salaa salaam am na ku mu waxoon mu naafule digaloon na ko mu naafule ku ñuy wax dégg nga euh, Suleyka wala ñu ne Suleyki dafa ñàkkoon lool lool daanaka si jumaa ji ci la amee dépassé semaine ba semaine bu beneen jumaa ñëwaate gars yi joxaat benn bis nag mu daal di tardé moom waa jooju ñoo fekk yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ngi xutba mu ñëw toog yonent bi nekk yaa suleeki xum wa tusalli rakkaatayni xafiifatayni jogal nga julli ñaar rakk yu xoyof ñu ne yonent duñ ci namoon namantu loolu pour nit ñi xam ne góor gi ñëw na képp ku ko dencoon loo ko jox dégg nga bu ñu jullee ba pare nga daal di ko jox waaye lesu dana toog ar rajulu góor mu ngi nii wala yusalli du julli fekk imaam mi ngi xutba ilaa an dara dafa nekkoon tala basada làmboo bi ndaf liñ ci naafale xabla du xoolil imaam njëkk dugg si imaam ci jumaa ji fekk mu ngi doon naafale kon bu mu dagg naafale gën a imaam toogee sax mu nodd bee nodd mu jox du xutba fekk moom naafaleem pare na ko moo loolu moom ayut mooy tax illaa an yëkkoon ndax dafa nekk tala ba sa doon làmboo bi naflin ci naafale xabla du xoolil imaam yi njëkk dugg si imaam kon fa yutti ma day mottali saali ko loolu dafay mottali loolu ba te dana xaraam si aj bi su ajuma albayxoon jaay wa ak jënd ànd asaane fa nodd ya bi imaam toogee ci minbar bi gaa yi ko commencé da noddu ar boobu nag dagan xaraam na ku fa jaayante ak jënd lenn da fu mën a jaay ndox koo xam ne mu ngi soxla ndox pour jàpp ñëw si jumaa ji wala pour sangu ñëw si jumaa ji su boobaa yow mën nga koo jaay ndox soo ko mënta may mën na koo jënd pour jàpp ñëw wala mu euh, dégg sangoo ko fekk sangu moo ko war sangu daal di ñëw waaye mboolam njaay mi fa def dafay xaraam njaay ma dañ koy firi duñ fa takk sëy duñ fa def njaay ak jand xandal azaani fa noddee nopp fa noddu asaani bu ñaareel ga mu ngi ne wayëb soq des na firi njaay ma in waqaxa bu fekk dafa am dafa taabi waaye yokkuruhu sib nañ tarkul des na sib tarkul amal bàyyi lëggéey yoomal jumuat bisu ajuma teel a ajuma dama koy feetoo duma ma liggéey loolu dañ ko sib da nga liggéey rek boo liggéey bu heure sawaal jege si kay nga wàcci wa tanafulul imaam ak naafale imaam xablal xutbati njëkk xutba imaam bu dugg see rek dañ bëgg rek mu def naafule kon mu demee xëcc commune bi bu laay wax waaye bu mu ñëw naa mu fay naafale loolu dañ koo sib wa kazalika na ko noon yukrahu sim nañ wa kazalika na ko noon yukrahu des na sib lil jaali si ñeel aji toog an yetta nafa la mu naafil àndal asaan bu njëkk ba yow da ñëw si jumaa ji bi nga ñëwee nga toog naafale xoo xanaa nga ñëw toog jàpp sa njàmbur bañ da nodd nga jot di naafale loolu sim nañ ko wa kazalika na ko noon sim nañ asafaru tukki baadal fajri gannaaw bu fajar xare ci képp koo xam ne jumaa daf la war gannaaw fajar te mu wóor la ne balaa ngaa yegg fa nga jëm jumaa dana paase kon sim nañ ngay tukki waaye na xaraamul wallahu yàlla axlam moo war a aji xam allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala wa asaabihi wa sallama tasliman kasira lu ci jub nag ci yàlla la lu ci dëng ci ñun la ñàkk xam-xam ak ñàkk fasa ak ñàkk fasa wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu